asalaamaaleykum daleen nag jàmm ci seen émission stop coronavirus comme niñ koy defee euh, saa su nekk euh, laata ñu jublu ci suñu invité professeur Yérim Mbagnick Diop di directeur de la pharmacie et du médicament euh, ni ngeen ko déggee tey dinañu waxtaanee réglementation chloroquine bi nga xam ne amagul autorisation de mise sur le marché ci jamono ji waxtaanee lu aju ci garab yi nga xam ne France yu ci bëri nee na dootuñ ko exporter Sénégal bokk na ci fanweer ak juróom ay garab yoo xam ne dañuy faj coronavirus garab yoo tam xam ne tamit euh, dinañ ko soxla ci wàllu anesthésie réanimation waaye tamit euh, yeneen garab yu soxal tout simplement médecine d'urgence loolu yëpp suñu invité professeur Yérim Mbagnick Diop euh, dina ci ñëw waxit ci lépp lu laale ak nu ñuy def ba am souveraineté ci jamono ji nga xam ne Inde mi doon exporté garab yi ci réewum Afrique yu bëri dakkal nañu ko nan la def pour génn ci laata loolu dañu dem ba diwaanu Touba fekk fa tuuti sey mu defal ñu le diwaan ba tuuti. waaw Marie Rosalie. Euh, ñu ngi lay ziar tuuti sëy waa ñu leen di fay bu baax a baax. Mhm. yenn xibaar ñoo mujjee wàcc foofu ci diwaan bi. waa li nga xam ni moom lañ mën a jàpp tey ci situation bi ki nga xamante ni moom mooy médecin chef région bu Diourbel xamal ñu ko mooy ne jamono tey ji ci euh, àllarba ji fi nga xamante ni moom mooy Touba. juróom-ñaari cas ñoom ñoo fi am muy juróom yoo xam ne ay cas contact lañ maanaam ñoo xam ni dañoo jotoon laale ak ñoo xam ni jotoon nañ am feebar bi ak ñaar ñoo xamante ni ay cas communautaire lañu euh, bu dee fi nga xam ni mooy district bu Mbacké ñoo xamante ni am na ñaari cas yoo xam ni ay cas communautaire lañ ñoom ñëpp nag ñu nekk fi nga xamante ni moom mooy ci bërëbu fajukaay bi nga xam ne moo nekk fii ci daaru marnaan ñu fiy faj ñi nga xam ni ñoom la jàngoro bi am ñu jàpp ni bërëb boo xam ni bi épidémie bi tàmbalee ba léegi euh, mooy bërëb bi ñu njëkkoon a nemmeekoo ki amee woon jàngoro bi ba fan yële nag laata cas communautaire yi doon tàmbali feeñ bi mu desee benn nit rek dañoo waxoon ni kooku su génnee dañu désinfecté bërëb bi war ko bu askan bi ngir ñu fay fajoo parce que bërëb la boo xam ne ci quartier la nekk askan bi fa lañ doon fajoo waaye ba léegi loolu mënagul nekk ndax ñu ngi ko def li nga xam ne moom mooy centre de traitement ki nga xam ne mooy Touba te ñu doon wax naan dañ fiy ubbi bërëb boo xam ne dañ fay faral di dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy amee jàngoro bi bërëb boobu ba léegi taxawagul euh, bis bu nekk ñu wax ni beneen lieu la ñuy def war lieu di changé changé ba tax na sant boobu ba léegi taxawagul fi nga xamante ni moom mooy Touba te ñu ñuy xamal sax ni ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ñoom ñu ngi tàmbali am jafe-jafe ndaxte lii su yokkee du ñu am fu ñu leen yóbbu traitement mais aussi cas contact yi ñi nga xam ne dañ leen war a suivre sax dañuy am problème fu ñu leen mettre en observation parce que fii nekkul bërëb boo xam ne dafa bëri ay réceptif euh, hôtelier ba tax na lool it ñu ngi doon xalaat ni war nañ see mën a indi ay euh, euh, solution leneen li nga xam ne Marie Rosalie mën nañ ko wax bi ci situation bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy les autorités administratives aussi ñoom yokk nañ li nga xam ne mooy mesures yi ndax kii nga xam ne mooy préfet département génne na wax ni marché bi nga xamante ni moom mooy marché Ocass ay yeneen marché yi nekk ci Touba yëpp Euh, li ko dalee suba six heures dinañ ko tëj ba ñaar fan a juróom ñeent ci quinze heures euh, mu soog a ñu ngir ñu mën a fexe daal ba dakkal transmission parce que dañu gis ne yi nga xam ne moo njëkk am Touba yëpp mi ngi amee fi nga xam ne moom mooy marché Ocass leneen li également jëm na ci wàllu transport yi loolu it waxoon nañ ko euh, réglementé nit ñi surtout oto yi nga xam ne moo jugee Mbàkke Touba di def navette bi dañu gis ni dafay jël daf naan douze personnes ci loolu nga xam ne moom mooy dem bi ak dikk bi ñu waxoon leen ni nañu yemale loolu di nombre yi ñenn ñi di ko respecté ñeneen ñi nag di dem ba euh, def ay nombre yoo xamante ni dafa ëpp leen di également euh, ci ci wàllu tëju marché yooyu nag euh, ñoom ñu wax ni sax commerce essentiel bi nag bokk ci maanaam ñi nga xam ne ñooy faral di jaay ay denrées alimentaires loolu précisé nañ ko ci arrêté bi nga xam ni moom la préfet génne génne woon également beneen arrêté jëmale ko ci marché bi nga xam ni aussi mooy Mbàkke mu concerné li nga xam ni moom mooy fermeture boobu Euh, bu dee nag ci mesure individuelle yi Marie Rosalie ak surtout port de masque yi gis nañu population bi depuis altine ñu ko waxee ñu rendre ko obligatoire ba léegi ñu bëri ñu ngi ciy def ay effort di takk li nga xam ne moom mooy masque yi que ce soit dans les lieux transport yi ñu bëri ñu ngi ciy góorgóorlu donte sax ba léegi am na ci ñenn ñoo xamante nii ba tey di nga leen gis ñu nekk ci yenn lieux yi te duñu takk li nga xam ni moom mooy seeni euh, masque euh, ba tax na it ñooñu nga xam ñooy faral di def sensibilisation yi muy ay association yu nekk fii ñoom ñu ngi koy wajal di gën a xamal ni njëriñ bi nga xam ni porte masque boobu am na ko ngir mën a aaru ci li nga xam ne moom mooy jàngoro ji te transmission communautaire bi di fi gën a law di gën jaaxal ci yi gën di jaaxal également ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi Marie euh, Rosalie tuuti euh, gis nga comme niñ ko gisee niñ ko déggee tey ji euh, xam nañ ne mhm. cas communautaire yi ñu ngi gën di yokk foofu Touba est-ce que lu ni mel indi na coppite ci doxalinu askan wi ndax wàññi nañu mbumbaay bi taxawaalu ci mbedd beeg yooyu waaw loolu constaté nañ ko parce que boo demee am na fi yenn bërëb yoo xamante ni daan nga fa gis ay nit yu bëri mais léegi mel na ni euh, loolu mi ngi wàññeeku de plus en plus donte sax comme li ma wax sànq rapport ak port de masque yi des na ba tey parce que li ngay gën di gis surtout moom mooy ci ngoon gi euh, couvre-feu lañ wax vingt lay tàmb tàmbali nit ñi war a fatu mais diggante dix huit heures wala dix heures trente jàpp vingt heures moment boobu dafay mel ni nit ñi dañuy dañuy bëgg di tàggoo ak mbedd bi doo dañuy def ay ay dajaloo yu bëree bëri ci koñ yi ci buntu kër yi fees dellu toog naan café waxtaan di savourer peut xam naa li ko mën a tuddee les derniers moments ci biti avant ñuy dugg ci biir kër yi te loolu aussi dafa nekk loo xam ne ay comportement yoo xam ne fa nit ñi war nañ di ko gën di bàyyi di bàyyi parce que bu fekkee dañu bañ dajaloo nit ñi tamit ñi balaa vingt heures di jot ñun nañ profité lu maximum dajaloo ci koñ yi toog waxtaan naan ak échanger ay gaz yooyu aussi ay ay ay ay ay comportement la yoo xam ne ñu ngi koy faral di gis ci ci ci ci nga xamante ni moom la ci diggante Touba ak Mbacké bu mel ni kon des na foofu pour nit ñi changer de comportement par rapport ak loolu ñu fekkee ne dañu la defal li defal defal bàyyi li bàyyi lii nga tànn ki ni nga xam ne xëy na arrangé na la def la def ko bàyyi leneen li loolu yaakaar naa ni dafa mel ni du régler li nga xam ne moom mooy problème bi kon su fekkee au moment ñenn ñi moom lépp lu ñu dicté ñu koy jiima def lépp lu ñu wax ñu ko bàyyi ñu koy tere am na ci ñeneen ñoo xamante ni xëñ na ñoom demi mesure la ñu def dañuy bàyyi lii def lii te loolu yaakaar naa ni nekk na loo xam ni mënul régler problème bi définitivement Marie Rosalie Euh, jërëjëf euh, tuuti sëy ci euh, xibaar yi nga xam ne fësal nga ko soxal diwaanu Touba dama leen di fàttali rek ne tey ji yemook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril ministère de la santé et de l'action sociale na ne ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñaari test yoo xam ne réalisé nañ ko fanweer yi ba ñu ñëwee dañoo positif te ca fanweer yooyu am na ñaar fukki cas ak juróom-benn yoo xam ne ay contact yu ñu doon toppandi la ndax dañu jege woon ñoo xam ne feebar bi dafa feeñ ci ñoom ba noppi ba ñu confirmer ko am na ci nag ñeenti cas yoo xam ne seen euh, feebar ñu ngi ko jëlee ci askan wi lu ñuy wax euh, transmission communautaire te euh, kenn xamul kan moo leen ko wàll ñeenti cas yooyu nag ñu ngi ko fekk co diwaanu Touba ba tey ci bésu àllarba bi am na fukki patient ak benn yoo xam ne dañ leen hospitalisé woon ñoom faj nañ leen ba ñu wër te génn nañu waaye nag la ca yokku moo di benn kaa bi nga xam ne moom dafa faatoo ca diwaanu Louga mu nekk na ci juróom-ñaar fukki at ak ñeent waaye nag eh, li ci doy waar moo di nekkul fa ñu doon fajee ñi nga xam ne eh, dañuy eh, am feebar bi fa lañ nekk moom hôpital lañ ko la la ñàkkee bakkanam xanaa dañuy ànd ak Lamine Gueye Samane suñu correspondant nekk ci diwaanu Louga ngir mu gën ñu indil ay leeral ci mbir boobule Lamine Gueye Marie waaw maa ngi lay ziar ndax mën nga ñu indil ay leeral ci xibaar yi nga xam ne euh, ñu ngi koy waxtaanee dalee ko démb ak euh, faatu gi nga xam ne nemmeeku nañu ko fa. waaw ñu ngi lay ziar di nuyu mbokki ko waxee noonu la amee Louga tey dafa yeewu ak taam bu njëkk euh, nit ko faatoo jëlee ko si li ñuy doomu jàngoro ji ñuy wooye coronavirus. mu nekk góor gi nga xam ne toll woon nañ si juróom-ñaar fukki at ak ñeent moom si hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye la faatoo. li si li li ñu ngi di laajte tey mooy ndax dëgg-dëgg euh, cas contact la woon wala cas communautaire la mais xibaar yi nga xam ni moom la ñu région médicale dox ba mu ni cas contact la contact la ak ki nga xam ne moo ko jikkoon am euh, indi ko si biir Louga te kenn xamul woon ko wàll euh, bi mbir mi amee ak léegi nag coow li bare na lool ak tiit ak njàqare si askan bi yëpp li ko waral bare na ndax tey jii ki nga xam ne moom moo faatu bokkul si listu Euh, ñi nga xam ni ñoom lu ñu saytu doon saytu bokkul tam si bokkul si liste bi ak ñi nga xam ni ñoom ñoom la ñu saytu bokkul si liste également ñi nga xam ni ñoom la ñu ñooy ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent yi nga xam ñoom ñoo nekkoon quarantaine moom daal bi mu yëgee ni am na wér-gu-yaram euh, am na jafe-jafe si wàllu wér-gu-yaramam si la dem hôpital jaar euh, def ak consultation mu jaar urgence ñu yóbbu ko sax médecine si ngoon gi bi 17 heures 30 jotee si la faatu. Euh, mu yéeme lool muy cas bu yéeme euh, ndax euh, tey jii am na centre bi nga xam ni dañ koo defar ci biir hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye ngir uniquement dafa traité ñi am feebaru jàngoro ji lii di matériel beeg yëpp yembo na jotul woon sax am kenn ki nga xam ne ku feebar ku fa dalal moom na fa kenn traité wu ko woon foofu mu nga dee ci ci surtout hôpital bi. mais pas si biir centre bi nga xam ni moom la ñuy jagleel mbooloo mi ko am feebaru coronavirus si biir Louga am fu lu toll si fukki lal si euh, xibaar yi nga xam ne jot nañ ko itam toujours jóge loolu hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye laata muy faatu sax jëloon nañu ay prélèvement si moom prélèvement yooyu laata muy egsi moom na bakkanam prélèvement yi bu mu dellu see tey itam lu ñu wax ni dafa positif muy laaj yu bare ndax waa ji nga xam ni boobaat fan la ko jëlee boobaat léegi également ñan la doon dajeel euh, li mu diiru li muy ñëw si hôpital bi saytu wér gu mu jël wëtiir léeg mu jël kalandoo ñaata kalandoo euh, nit la kalandoo yooyu ak euh, lii di charrette yooyu wala boog wëtiir yooyu doon yëpp yooyu yëpp daal tey ñu ngi koy laajte comité de crise bi ne comité régional de gestion des épidémies amal na benn ndaje bi nga xam ne ndaje réunion de crise lañ koy wax daana ñu def ñu ko génnee la dajeeg presque presque xibaar yi ne tey def ñu lu ni mel. am na leen xabaar yi xam ne ñun jot nañ ko ñu ne sax am na benn équipe bu euh, comité régional de gestion des épidémies boobu bi xam ne jot na jokk dem seeti ki ko fi jëkkoon am seet ndax dafa am ay contact yi nga xam ne daf leen nëbboon wala déet euh, loolu daal lu ñu mën lu ñu mën a jàpp di fàttali itam ni ki nga xam ni moom moo faatu sëriñ la bare na ñu daan ñaanal bokk na sax ki nga xam ni moom moo ko jëkk indi di commerçant bu mag boobu dikkoon ko am moom itam sëriñ sëriñum la woon euh, ba tax na daal ngir ñu yéeme lool ba tax na actuellement ni ñu dem mooy tonte méfiance daal moom la ñu gën a nemmeeku ak euh, njàqare bu wér fii si biir Louga si jamono waaw Lamine Gueye Samane euh, ndax mën nañu xam ndax ci jamono ji njabootu euh, sëriñ boobu ñu mu dëkkaloon lan mooy seen situation est-ce que ñoom ñëpp dañ leen yóbbu quarantaine en isolé leen en attendant euh, ñu defal leen test ak ji nga xam ne yaakaar nañ ne ay contact lañ ndax d'habitude bu ñu détecté nit dañ koy laaj kan nga jege woon ñan ñooy sa contact mais comme génn na àdduna est-ce que biral nañu yan stratégie la ñuy def ngir rattraper ñoo ñëpp nga xam ne jotoon nañu nekk en contact ak moom. waaw comme que comme que nit ki nga xam ne ku ñëpp xam la sëriñ la comme ni mu ko ni mu ko waxee sànq euh, yàgg na nit ñi xam nañu déjà fu mu dëkk et tout euh, li si def kay moom mooy équipe bi nga xam ne jog na dem non seulement contact euh, famille famille yu ki nga xam ne moo gën a ñàkk bakkanam tey waaye itam seet ki nga xam ni moom lu ñuy wax ni sëriñam la te moo ko dëkkoon indi fii seet ndax dafa am yeneen contact yi nga xam ne nëbb na ko wala te ndax ñoo itam laale nañu ak sëriñ bi wala donc actuellement jafe na sax nga am. Euh, ñii di waa kër docteur parce que euh, boobaak léegi daal nekkuñu si jàmm ñoom itam ñu ngi daal def seen kéem tulaayu kàttan pour jéem a recenser ñëpp ñi nga xam ne laale woon nañu ak sëriñ boobu waaye saytu saytuwaale également seet ndax euh, ci ki fi dikkoon indi di sëriñ boobu dafa am ñu mu tudd woon wala parce que kii moom bokkul woon si liste ñi nga xam ne ñoom ñoo contact ñoom ñu ñoo doon contact yi xam ne recensé woon leen yëpp ñuy dem di dem di dem ba fukki nit ak benn wér si Euh, mu desoon euh, fukki nit ak juróom-ñett yi ñu doon saytu ci diggante ndar ak fi xam ne mooy dalal jàmm ak euh, jam ñaajo ñi nekkoon ndar sax wax nañu wér nañu ba ñibbi si am na itam deux cent trente neuf personnes ñaar téeméer ak fanweer yi am loo ñoo ngi leen doon seet donc te waa ji moom bokk ci woon donc mbir mi daal xam naa dina gën a yaatu bu ñu bëggee seet si sëriñ bi jaaroon yépp waa këram d'abord ñi mu doon laalanteel ñi mu doon ñaanal Euh, yooyu yëpp daal xam naa ne actuellement moom la euh, euh, comité régional de lutte comité régional de gestion des épidémies nekkee jamono yi ñu toll. Euh, jërëjëf Lamine Gueye Samane nekkal euh, su FM ca diwaanu Louga euh, ci kanam tuuti dinañ dem Ziguinchor jéem a jokko ak benn Michel Kanfoudi fa ndax foofu tamit am na benn xibaar boo xam ne tey jii moom la ñu jot ndax moo di ab waay di benn tubaab boo xam ne moom dafa bokkoon ci cas yi ñu confirmé mu feebaroon ak feebar bi nga xam ne moo di coronavirus bañ ko fajee nag ba mu wër dañu toog ba ci ay fan ci jamono ji ñuy xam ne ne dafa rechuté li tubaab di wax rechuté maanaam. virus bi dafa feeñaat ci yaramam te lu ni mel ñu ko jëlee ci fanweeri test ak ñaar yi nga xam ne def nañ ko tey jii ci diwaanu Ziguinchor moom nag moom kenn euh, moom la ñu jàpp moom la ñu jot ci ñi nga xam ne euh, moom la ñu gis ne euh, feebar bi mu ngi ci moom dañuy ubbi antenne bi rek ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañu participer joxe seen contribution wala am ay laaj yu soxal cas yi nga xam ne tey jii soxal na lool askanu Sénégal ñu ci indi ay laaj yu bëree bëri naka la tëddee dañuy dem ba Ziguinchor jokkoo ak benn Michel Kanfoudi tuumaal mbir moomulee nga xam ne moo di cas de bi am foofu benn Michel Kanfoudi. maa ngi lay waaw maa ngi lay fay tey jii comme ni nga ko déggee rek moo di cas de bi am foofu ci diwaan bi euh, ndax am na ay xibaar yu dellu si aju gën a indi explication ci lu waral loolu. waaw ba léegi nag amaguñu xibaar euh, buy jëm ci wàllu woowu lu ñu mën a jàpp rek lu ñu mën a jàpp rek mooy euh, waajooju euh, dafa rechuté loolu lañ jot ci xibaar yu ñi nga xamante ni ñoo ŋànk comité de lutte contre Covid 19 bi fii ci diwaanu Ziguinchor donc waajooju ci fàttali bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk am jàngooro ji fii. Euh, ci diwaanu Ziguinchor mu nekk nag benn nasaraan bi nga xamante ni euh, naam fii la euh, dëkk ci station balnéaire bu Cap Skirring plus précisément ca Bukot Diembéring nekk ca commune bu Diembéring nekk tamit département bu Oussouye moom nag dafa demoon France bu muy jóge foofu nag di dellu si fii nga xam ni foofu la dëkk di baie Bukot ci lañ ko ci la daal di euh, ame jàngoro jooju ñetti fan wala jàpp ñeent gannaaw bu mu yegsee fii ci ci diwaanu euh, Ziguinchor donc bu mu ko amee ba pare ñu yóbbu ko moom sax moo nekkoon ñetteelu nit bi nga xam ni amoon na fi jàngoro ci diwaanu Ziguinchor euh, bañ ko yóbboo nag ci centre de traitement bi foofu lañ ko yoroon. Euh, ba ci euh, alxamis euh, bi nga xamante ni mooy moom lañ jógee ne alxamis bu ay bés bee ñu jógee alxamis bi nag la mujjee génn foofu ci de traitement bu hôpital régional bu Ziguinchor donc xam naa dafa Euh, amaat euh, ay euh, symptômes loolu waral ñu daal di koy jëlaat testé ko buñ ko testé nag mu nekk positif donte sax balaa muy génn ci hôpital régional amaloon nañ ko ñetti test yu nga xamante ni dafa négatif looloo tax sax ba mu mujjee génn léegi nag xamuñu. Euh, ba fu mu tol nii li waral mu rechuté waat euh, mais li ñu mën a jàpp rek mooy waa jooju euh, dafa amaat jàngoro jooji di Covid 19 te fu mu nekk nii delluwaat nañ ko ci centre traitant bu nekk ci hôpital régional bu Ziguinchor moom nag mu ngi fay fekki ñeenti fukk benn nit yi nga xamante ni. Euh, ñoom ñoo fa nekk gum euh, ci euh, ñu nekk ci traitement bi ñuy fàttali rek ni ci ñooñu le am na kenn ci faatu ñetti ñi moom sax dafa bokkoon ci ñetti ñu génnoon donc fu mu nekk nii ñaar ñoo jot a wër ba fu mu toll nii ci ci diwaanu Ziguinchor ndaxte moom mi nga xamante ni mooy ñetteel bi. Euh, waroon na waaye fu mu nekk nii dafa mujjee rechuté Marie Roselle euh, waa kay euh, Ben Michel Kanfoudi ñu lay gërëm di la sant ci éclairage yi may fàttali ne Ben Michel Kanfoudi mooy correspondant bu Sud FM ci Ziguinchor kon nag dañuy ibbi antenne bi 88 628 98 98 wala 33 825 18 30 ñëpp ñi nga xam ne am nañu contribution wala loo xam ne daal jàngat nañu ko ci. cas yi nga xam ne moom lañ ko wax tey Touba ñeenti kaa communautaire am na it euh, li nga xam ne moo di ka faatu ca diwaanu Louga ak cas de rechute fële nga xam ne moo di Ziguinchor mu doon lu jaaxal lool te ji askanu Sénégal euh, dañuy euh, jéem a jël auditeur bu njëkk mu wax ñu lim ci xalaat asalaamaaleykum. waaw Marie Rosalie. ñoo ngi leen di nuyu di leen sant. ñu ngi delloo sant. Marie Rosalie. nit ñi nañu dellusi ci seen bopp. te xool di def luy dëgg. ndax yow da leer na yow ba ngay dem jaar nga fii jaar nga fii jaar nga fii lu tax boo feebaree doo taxaw nga wax réellement li mu doon bu ñuy nëbbante dara du ci sotti. Mhm. te encore état bi mu ngi bëgg seetaan. quartier bu communautaire am nañ ko confiner ñun ñii ay mère de famille lañu. Mhm. depuis le 17 mars ba tey génn ma sama kër dañuy sonn ba pare te ñeneen ñi duñ ñu may jàmm nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali état bi na jël responsabilité am état bi na jël responsabilité am ñoo ngi leen di gërëm di leen sant mhm. Marie Rosalie soxla naa numéro Maodo Faye Mhm. waa euh, da ngay woote waat rek euh, ci ginnaawu antenne bi comme ça ñu mën la ko communiquer lu dul en direct euh, jërëjëf ci contribution bi ñu woy ci waxtaan bi tey ji mooy ñetti mbir yi nga xam ne daal wala ñaar yi gën a soxal askanu Sénégal moo di ka faatu ca diwaanu Louga ndax feebar bi di coronavirus te fekk sa kenn détecté ko woon moom mu nga nekkoon këram feebar bi di ko gañe ba naka noonu la mujjee faatu ndax yeggul woon fa ñuy fajee ñiy dund ak feebar bi asalaam asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. Ndiaye. Mhm. Ndiaye naa def. Euh, maa ngi lay fay kooku Barka. Barka Diop Sarr 93 mhm. point 2. ñu ngi lay ziar Barka. yow ñoo ngi leen di gërëm yow yow surtout yow moom. Mhm. léegi rek Abdou Aziz Coulibaly a ngi wax raxas leen seen loxo. mais Marie Rosalie sa invité boobu dama ko doon laaj. Euh, crédit bii ñuy wax ne France euh, euh, médicament yi ñuy wax ne France dootu ko jaayeti Sénégal. Mhm. dama ko siy wax ne Sénégal ameloon na boru France ba ak fa bi ñuy def rajo rajo amatul Sénégal français jaayuñu jaayatuñu ko ndax bor bu bu Sénégal ameel état français. Mhm. ci médicament ma laaj loolu fu mu toll. Mhm. wala loolu ak feebar bi moo tax ñu wax ne France mais Sénégal ameel na état France. xaalis bu bari ci ay mbiru garab ba garab yu bari amoon rupture damay wax Louga comme dafa am cas te paa boobu maaraabu la woon am na ñu doon seet ñim doon seet ñëpp am na ñoo xam ne ba tey kenn gisu leen te bi mu ñëwee ci hôpital bi ñi ko doon saytu ñoo ñu war na leen a dépister te ñu te ñu xam ne Louga tamit amuñu moyen boobu moo Louga amul moyen boo xamante ni mën na mën na mën na mën nañu hospitaliser foofu ñu corona. ma leen di gërëm di leen sant yow Ndeye Khady Diop yow Sidi Gueye yow ñoom Nicolas Maodo Pape euh, Pape Abdoulaye Dieye ñëpp rek soosee ñoom Alsaan merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf Barka. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Ah, waa kay sëñ bi noo tudd wala fooy wootee. Ah, maa ngi lay ziar. man lu ma jaaxal la rek vraiment dama bëggoon xam médecin yi dañ leen wax quelqu'un qui était malade par virus mooy rechuter encore léegi donc ça veut que l'affaire c'est pas c'est pas c'est pas efficace ou bien c'est pas sûr. Euh, baal ma est-ce que mën nga mën nga mën nga delluwaat dellu waat ci laaj bi. laaj bi kay quelqu'un qui était malade par virus. Mhm. mu tombaat encore malade même même maladie. mu rechuter. m'ont rechuté. loolu ça veut dire que bi c' est pas c' pas c' est pas garanti à 100 pour cent que une fois tu guéris nga wér à 100 pour cent. mun mhm. nga mun nga rattraper encore à même mhm. chose même maladie. waaw loolu moo ñu xaw a jaaxal vraiment quelqu'un qui était malade gars yi vont venir le pallier nekkaat ak moom su nekkee moom day wàllaat encore fan mooy ñëw nuyu ko. qui va mm-hmm. suñu invité dina ci euh, indi ay euh, tontu euh, léegi nii rek kon nag premier laaj bi moo di bor bi nga xam ne Barka moom moo ko laaj moo di boor bi nga xam ne Sénégal ameloon na ko France ci ay wàllu garab. ak beneen laaj bi mooy euh, contribution la sax nee na Louga amul moyen boo xam ne dinañu mën a hospitaliser ñuy dund ak feebar bi foofu loolu moo di contribution Barka euh, ki mujjee woote euh, professeur moom li muy laaj moo di est-ce que traitement bi c'est efficace ndax ñu faj nit ba pare vraiment mu rechuté waat mu doon lu jaaxal lool askan wi balaa ma lay jox euh, euh, kàddu gi pour nga tontu leen dama lay bàyyi nga nuyoon nuyoonteeg euh, auditeurs yi may rappelé ne comme ni ngeen ko déggee ci bande annonce bi suñu invité tey mooy professeur Yérim Mbagnick Diop di directeur de la pharmacie et du médicament ñu fas yéene waxtaane mbirum garab comme ni ma ko waxee sànq bamtuwaat ko garab yi nga xam ne France nee na dootu ko importer Sénégal te bokk na ci ay garab yoo xam ne dañ koy utiliser pour faj coronavirus buñ ko 39 médicaments wax ci euh, chloroquine bi ak euh, entreprise Médis bi nga xam ne moom lañu ne moom rek ay defar chloroquine fii Sénégal bëgguñu ubbiwaat ko fan la mbiri toll est-ce que dina antu am déet wax tamit ci yeneen i mbir soxal feebar bi professeur euh, dama lay bàyyi nga yoon teg auditeurs yi. salaamaaleykum Rosalie maa ngi lay nuyu di jégalu ci retard bu ndaw bi parce que maa ngi jóge ba ville di sant yàlla kontaan ci invité bi invitation bu ma invité. te fas yéene nekk ak auditeurs yi may nuyu tamit leen ñaanal jàmm si jamono yi te fas yéene tamit kem suñu kàttan indi leen ay leeral ak ay dalal leen seen xel par rapport ak euh, médicaments yi. Mm-hmm. waaw euh, comme ni nga ko déggee sànq rek euh, suñu respondant yi def nañu ay euh, direct Touba 4K communautaire yi fa am diwaanu Louga ko fa ñàkk bakkanam ndax feebar bi te sax kenn dépisté wu ko woon auparavant feebar ak sonn moo tax mu yegg hôpital ñu mu daal di ñàkk bakkanam laata résultat yi sax di génn diwaanu Ziguinchor mu amit cas rechute loolu yëpp professeur ban jàngat nga ci am. waaw donc loolu rek day day wane complication bi nga xam ne. la compliqué bi nga xam ne maladie bi compliqué na ko Covid donc euh, naam sax coronavirus si xeetu virus yoo xam ne xam xamoon nañ ko moo tax yaakaar yi ñu am si chloroquine bi sax ñu teel see dem wante bii moom corse corps de bi mooy Covid 19 bi moom xaw nañoo jaaxal déjà nu muy nu muy wàllee dafa gaaw ba pare su demee si phase maanaam phase pulmonaire yi. dafay xaw a jafe pour ñu récupérer malade bi. Mhm, maanaam ci xëtër yi. waaw su boobaa dañ ci def énergie bu bëri bëri bëri te du te du tax tamit ñu am victoire parce que soo xoolee ñiy dee si bitim réew yëpp ay France ak yooyu phase boobu la ñu prise en charge dafa lourd te yàlla nañu si yàlla musal fii moom su fi ñëwee du ñu attan prise en charge boobu su bëree du jéggee dayoo kon euh, dépistage bi am na solo li xew nag dafay tiital ñëpp dafay tiital ñëpp. commencé par autorité sanitaire yeeg parce que euh, ministre bi su sañoon kenn ku ne wala Sénégal yëpp mucc si ja jàngoro yëpp rawatina si feebar bi te boobu léegi ñu si xar xar suñu tànk tubéy léegi nag euh, comme ni ñu ko waxee cas euh, transmission communautaire yi moom mooy gros problème bi parce que duñu xam kenn ku ne potentiel porteur de virus bi la kenn ku ne si ñun. moo tax mesure barrière bi ñu wax surtout masque yi am solo nga xam ne soo feebaree sax doo ko wàll ñi nga nekkal mais ki ki génn àdduna peut-être balaa ma génn àdduna jot naa jànkonteel ak waa këram ak ñeneen donc dafa naqaree maîtriser naqaree gérer parce que nu muy lawee dafay gaaw parce que doo xam cas bi kan ak kan la da jànkonteel moo tax vraiment ñu insté waat ci mesure de prévention yi mesure barrière yooyu c'est important. Mm-hmm. léegi eh, kii kii dee fële ki ñàkk bakkanam Louga côté Louga léegi rek maa ngi nekkoon si benn réunion pharmacien Louga bi di ko wax ne lu leen bett la parce que suuraale wuñ donc loolu mooy wane ne rek war nañ gën a fagaru même ñu ñu traité tamit comme ni nga ko waxee sa njëlbeenu kàddu ñu ñu traité ba ñu wér du wér nañ rek dootu dootuñu am feebar bi parce que maa ngi ko doon expliqué benn yoon ma ne virus bi dafa. dafa complexe nga xam ne suy dugg si suy attaqué cellules yi dafa am ay bunt yu bëri yu muy jaar léegi nag su soogee njëkk a dugg bunt principal bi moom la organisme bi maanaam suñu yaram moom lay xàmmee ba teg ci ay soldaar du tere yeneen porondool yi mun na si jaar donc soo soo amul euh, système immunitaire bu bu taxaw mu nga xam ne di ko teel a faagaagal day jaar ci yeneen bunt yi dugg di multiplier wu nag ngir def réplication su boobaa. Euh, euh, organisme bi su yëgee loolu rek dafay réagi réaction bu bu méttee métti loolu mooy indi dee yi mooy c'est c'est le surplus d'énergie de de soldats yu yu suñu yaram bi di génnee pour xeex virus bi mooy réale cellule pulmonaire yi ba dootoo mën a respirer ngay am problème de respiration te xam wóoruguñu ne wala sax c'est presque sur que soo amee feebar ba wër si tamit mën nga am benn système immunitaire boo xam ne dina la aar naam si début début mais mën na la ñàkk aar kon même soo feebaree génn si da war a protéger wu donc yooyu yëpp ay ay mesures la yoo xam ne nañu ko jël. Mm-hmm. kii euh, indi laaj boobu sax wootee diwaanu ci lu xew si Ziguinchor moom li muy laajte mooy xëy na euh, xanaa traitement bi dafa efficace sul ba nit war a wër euh, feebaraat rechuté wala c'est juste tout simplement parce que wër na waaye dafa protéger wul boppam ba jotaat ci jàngoro ji. waaw même même traitement bi sax fu mu ne amul benn dëkk bu ne bu la mën a wax ni am naa traitement bu efficace à cent pour cent États-Unis ak France yam ñëpp ñu ngi testé ay ay garab yu bëri tu vois am na ay antirétroviraux comme lopinavir ritonavir am na remdesivir boobu am nañ ci yaakaar am na hydroxychloroquine bi ñuy booleek antibiotiques yi pour su amee ay infection <coughs> donc ñëpp dañuy toll ci testé amul benn garab boo xam ne tegoon nañ ko pour Covid ñëwee mu xeex ko kon lu bees la lu bees la même euh, la partie sax la partie encadrement réglementaire sax il ñu gaaw ñu fi nekk di évaluer yooyu il ñu gaaw pour pour euh, xeex jàngoro bi. léegi nag ci wàllu boobu partie encadrement réglementation boobu noonu. mën nañu si ñëwaat. Mhm. waaw mën nañu si ñëwaat léegi nag feebar bi dafa am ñetti pàcc ñetti phase la phase bu njëkk bi mooy phase pratiquement boo xam ne di nga am ay sëqat yu sew yaram bu tàng tuuti. am am les signes les signes qui qui qui veut dire que virus bi dugg na la mi ngi commencé di multiplier wu. après mu dem phase boo xam ne da ngay am fatigue essoufflement tuuti mooy phase bi nga xam ne c'est la phase euh, pulmonaire après day am phase boo xam ne day am phase virale plutôt après day am phase boo xam ne c'est la phase pulmonaire da nga xam ne cellule pulmonaire yi mu ne attaque nañ leen virus bi ëpp leen doole si boobaa moom ngay da ngay fat complètement dootoo mën a noyyi loolu loolu intubation rek maanaam. jël ay raakool dugalal la ko def la sous oxygène pare defal la coma artificiel parce que virus bi système bi mooy système organisme mi ngi joxe ay ay ay ballu fetal yoo xam ne pour rey jàngoro ji mooy ëpp bay reyaale say cellule waaw phase boobu moo tax souvent ñuy def nit ki sous coma artificiel di ko jox oxygène di xeexaale virus bi ba mu dañ ñu soog ko récupérer mhm. loolu dafa lourd c'est lourd phase boobu nag su si yeggee mooy chance yi les chances pour que chloroquine bi marché sax. day xay moo ñu ko day daw. Mhm. fu muy gën a marché mooy soo amee signe rek soo amee signe wala nga nga nekk cas contact ñu testé la nga positif rek ñu tegal la sous ñu teg la traitement mën nga am chance de forte chance pour guérir. te début yi yi ñu doon visité nga xam ne nga ñëw jógee tukki ñu ñu ñu ñu tàngaay tàngoor wala defal la test. aussitôt soo positivé ñu teg la su traitement yooyu di nga am chance pour génn si su fekkee amoon lu ñuy wax koo comorbidité su fekkee yow sa organisme quand xaw na dëgër mais gis nañ ne si jàngat ne ñi am jabet feebar bi daf leen jàpp trop ñu am yenn fe insuffisance yeeg euh, kër yeeg feebar bi daf leen gaaw a tëral te souvent nag soo demee ba passé 60 ans yooyu day faral di bëri moo tax am na ay stratégie yoo xam ne ñuy faj ñu ngi siy xalaat pour. gën a mën a jël en charge de façon précoce ñi am doomu jàngoro ji am na sax benn boo xam ne peut-être siiwagul boo xam ne dañuy xool les personnes à risque maanaam ñi nga xam ne âgé nañoo yooyu su fekkee ay cas contact rek lañu ñu commencé xool ndax duñ leen mën a commencé def traitement préventif mais kooku tamit si évaluation la ne donc fu ñu fu ñu ne daal dafa nekk feebar bu compliqué boo xam ne complexe boo xam ne. Mhm. toutes les stratégies waaw toutes les stratégies sont pour teel ko baare. léegi suñu demoon ba garab boobu ñuy testé efficace yi ñu mag ñi boobaa nañ leen mën jox en prévention soo nekkee cas contact rek ñu commencé la prévention jox la garab boo xam ne dina la aar mais loolu tamit il faut le prouver xamaguñ ci dara heureusement ma ne heureusement su ma nee heureusement tamit mooy heureusement ñu am doomu jàngoro bi yëpp duñu ñu développé feebar. Mm. am na ñuy wër spontanément ay 70 pour cent mais ñeneen ñi ci des suñ leen teelul détecté teel leen jël en charge. mun na compliqué mun na compliqué mun na compliqué donc euh, vraiment moo tax euh, fu mu ne daal mesure barrière yi mooy mooy solo bi mais nag soo demee ba am ko tamit dinañ la jël en charge parce que état bi daf na ay centre de traitement yoo xam ne képp ku ñu gis ngay contact sax dañ lay isolé ba soo développé signe bi rek ñu ne mettre la su traitement yóbbu la si centre de traitement ñu ngi réfléchir nag euh, au niveau du ministère sur des stratégies ñu ne agressive yoo xam ne dañuy soit ñu def détection massive pour teel a jël en charge ensuite ak mun a mun a saytu les cas contacts les cas communautaires ñan ak ñan ak ñan lañu la ñuy janal pour mun leen teel a teel a confiner mm-hmm. donc mesures yooyu tamit day dem ba indi mesure confinement des populations nga xam ne lu mu si jublu tamit mooy confiner le virus nga xam ne su nekkee fenn bu mu fa bu mu bu mu daw si nit ñi mm-hmm. donc c'est vraiment beaucoup de stratégies qui appellent beaucoup de discipline en dehors des cliniciens y a y tout. waaw ah. mhm. ñu ñëw ci mbirum garab yi. Euh, mhm. may fàttali ne yow yaay directeur de la pharmacie et du médicament. Mhm. fan yi ñu génn ñu dégg ne euh, France euh, dafa dakkal exportation yenn garab yoo xam ne bokk na ci ay garab yu faj coronavirus waaye yëpp ak yeneen i spécialité bokk na ci anesthésie réanimation ak médecine d'urgence. te ñu bëggoon xam ndax loolu dina am impact dina am njeexital ci tolluwaayu garab fii ci Sénégal. Euh, dama bëggoon gën a leeral tamit euh, communiqué boobu nga xam ne français dañ ko génne. Mhm. pour quand même dalal ñu ñi communiqué la communiqué la bi nga xam ne autorité garab yi France maanaam sama naataango foofu ñuy wax ANSM moo ko jël mais bon moo ko jël mais daf ko adressé ay français ay pharmaciens français la ko adressé ay grossistes français. Mhm. pour territoire français dafa ne gis naa ne kat léegi dafa am ay tension approvisionnement si garab yi garab yi dañu commencé manqué si structures yu ñu jëlee en charge les cas graves yi mu la wax nii léegi nag dañuy jël motuwaay ba nga xam ne garab yi ñuy defar ñun ñu nekk France dootuñu ko génne mais waxuñu de tout nootu nga yóbbu Sénégal wala Mali wala Burkina de dañu ne ñun dañuy toppatoo suñu maladie et ça. Mm-hmm. pour bañ a am rupture. pour bañ a am rupture c'est de bonne guerre. Mm-hmm. avant ñoom Inde waa Inde bu affaire bi commencé booru le trois mars dañu ñu benn note. ne garab bi matière première yi garab produit fini yi ak tous les maanaam mbooleem xeetu produit yi nga xam ne dañu ko utiliser pour xeex Covid ñoom dootuñu ko exporter. genre ñoom paracétamol ak yooyu waaw kañ loolu moo njëkk am. teewul tamit euh, xam nga garab moom nit il faut ñu xam notion de générique France su ne dootuma importe sama Perfalgan bu muy dafa foofu am na lu ma fukki générique paracétamol. maanaam yeneen yeneen industrie yuy defar garab boobu mais tuddee ko neneen te muy jógee Maroc mun na jógee Tunisie mun na jóge euh, damay wax dëkk Afrique yi mais comme mun na jóge Inde ak Pakistan fu nekk mun na fa jógee léegi suñu professionnels yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy def wàll euh, importation comme pharmacie nationale d'approvisionnement ak grossiste privé yi fi nekk am na ñeent privé yi fi nekk ñoom ñoom dañuy def ay pexe depuis pour am ay garab parce que loolu la neen sas mooy seen liggéey léegi nag bien sûr France ni mu def mun na am tension tuuti parce que doo doo ne mënul am. Euh, jeexital am jeexital mais jeexital bi c'est très faible. parce que lu tax ñu xalaat ne mun na am jeexital parce que garab yi ñuy jëlee yi ñuy dugal Sénégal muy jaar ci grossiste privé yi yu si bëri France lay jaar mais su jaar France nag su nekk ci grossiste France yi si ay dépôt sous douane lay nekk France. kon garab yooyu ñu ñu destiné Afrique dont le Sénégal am ñu droit dugg France territoire français ils sont sous des hangars sous te labo yi liggéey ak Sénégal yi nga xam ne enregistré na seen produit Sénégal Sénégal soxna na ko ñoo fa dénkaane seen seen produit teg ko foofu pour Sénégal ak yeneen pays Afrique yi. Mhm. kon y a moins de risque que garab yooyu soit concerné maintenant si liste garab bi 39 yi ñu wax am na ay produits yoo xam ne sous contrôle la. produit sous contrôle maanaam ñun suñuy soxlaa garab yooyu chaque mois de décembre dañuy wax Sénégal ñaata la soxla si anesthésique yooyu sous contrôle fentanyl ak yooyu ay psychotropes ak ay produits sous contrôle de façon mooy psychotropes ay yooyu. Mm-hmm. donc yooyu nag pour ñun ñu am ko il faut ñu wax ñaata la ñuy soxla si année bi mooy il faut ñu def benn prévisionnel tamit saa yu ñu koy saa yu ñu koy importer dañuy demander autorisation. importation day jóge si man dam si dëkk bu muy war a jóge su boobaa tamit ñooñu comme su fekkee France lañ ko laaj nañ saytu demande boobu xool ndax dañ koy accordé non mun na yéex nag mais normalement c'est des quantités pré établies maanaam quantité yoo xam ne dañ ko calculer ba pare pour dëkk bu ne nga xam ne ñëpp mo au niveau mondial benn organisme moo koy yore xam nañ ñaata la Sénégal di soxla si année bii di ñëw kon yooyu tamit mun na am tuuti yéex yéex mais warul am tension parce que c'était c'était prévu pour le Sénégal yooyu su contrôle moo tax ma yaakaar ne ensuite il faut rappeler aussi que 39 produits la garab yi faj feebar yëpp soo ko boolee ëpp nañ fi 6000 garab différent kon bon euh, mun nañ ne bon 39 sur 6000 xam nga mm-hmm. waaw donc mun nañ ne mun na am impact mais du lool mm-hmm. du lool quoi xel yi na dal waaw loolu laa bëgg xel yi xel la gën a dal mm-hmm. léegi nag grossiste tamit euh, mun nañu am quelques difficultés parce que ñoom lañ sas loolu ku mel ni PNA loolu moom lañ sas mu indi garab yi Sénégal ku mel ni grossiste privé yi bu ma leen tudd ñoom tamit ñoo ko war a indi Sénégal kooku mooy seen métier man damay dama ne ah wala gouvernement de ah soxla naa ko rek fexe leen ba bu mu am rupture. Mm-hmm. léegi nag ñun tous xam nañu les réalité de la du moment mooy Covid bi première conséquence am mooy li ñuy wax chaîne d' approvisionnement bi moo perturbé. Mm-hmm. prix yi dañoo yokk. benn prix garab yi ak matière première yi lu doon jar ñaar dërëm léegi ñaar fukk lay jar même si matière première yi su ma jëlee exemple gel yi bu ñu commencé kilo glycérine bi avant crise bi 13 euros la doon jar 13 dollars bu affaire bi am amee dem na ba 45 cinq 50 dollars te au niveau mondial donc soo jëlee fret bi tamit avion yu ñëwatuñu wala soo buggee indi par avion DHL ngay jaar mil prix bi di nga ko multiplier par 30 pour cent te loolu yëpp grossistes yi dañ koy supporter pour indi garab yi Sénégal donc ma am na ay conséquences yoon bi yéex na tamit mais quand même garab yi am nañ fi. Mhm. il faut ñu dalal si xelu Sénégalais yi quoi. te ci conséquences yi bokk na ci njëg yi nga xam ne dafay yokk. si garab xam ne nekkul woon ci stock yi peut-être. njëg yi sax su yokk moom du yokk si seen si Sénégal bi. Mhm. parce que quand même dëkk la boo xam ne dañoo stabiliser prix yi. on naa homologué tous les prix de Dakar à Fongolemi. même su grossiste yi di amee dépense supérieure lu ñu doon dépense pour indi garab yi du tee duñ ko teg ci ci prix garab yi duñ ko si yokk donc loolu péréquation la boo xam ne état suñuy demandé pour dugg Sénégal lañu leen di fixer prix au public kon mun ñu laal loolu loolu moom réglé nañ ko. Mhm. bokk ñoo yeneen dëkk yi nga xam ne ça fluctue quoi. Mhm. Euh, kon defe naa ci li nga expliqué ci wàllum euh, exportation garab yi France tontu na laaju barka bi nga xam ne moom dafa bëggoon xam ndax euh, li ko waral moo di ab bor nee na boo boo xam ne Sénégal moom moo ko ameloon France ci wàllu rajo. bon je pense que sa bi jël na ko en keneen nag euh, ba li muy laaj ba tey ci wàllu garab moom euh, dafa ne woon euh, dafa gis ne am na différence ci gel yi gel hydroalcoolique yi ndax mhm. bu njëkk yu njëkk ya dafa doon frais et puis dafay gaaw a wow mais mhm. am nañ ci yu bëri yoo xam ne boo ko gisee couleur bi xaw na changé mais dafay ratax mhm. boo defee sa loxo ba pare faw ma jël mouchoir sinon day gluant mu bëggoon xam ndax dafa am différence de qualité wala gel yi wala solution hydroalcoolique yi li tax mu efficace mooy seen teneur en alcool c'est réglementé même ANSM sax jël na si benn dogal mais balaa dogal boobu OMS amoon na dogal si naka la gel war a am quelle est la teneur en alcool. Mm-hmm. Hmm? qui doit entre soixante quinze ak quatre vingt pour cent. léegi gis nga ni ñu utiliser gel yi gel bi changé na soo su ma jëlee benn bi fi njëkkoon nga xam ne depuis treize ans mi ngi fi am na na yeneen yu fi nekk bëgguma du marque. mais bi nga xam ne ça dépend du secteur pharmaceutique wala Afrique dafa xaw a changé mais stratégie la parce que am na soo demee ay dëkk yu mel ni Espagne seen gel yi noonu la xaw a mel dina xaw a tax wante su woowee dootoo sentir dara pour mu def temps réagir la parce que alcool tamit soo defee nii rek dafa lu lu doy mun na ba quantité bi war mun na bañ a yegg sa loxo pour agir donc yooyu c'est pour ça mais li am solo mooy contrôle qualité bi bi génnee teneur en alcool bi. waaw su fekkoon ratax bi sax day ratax du dañ mais soo too soo kiiyee quelque temps pour nga gën a am temps de contact 30 secondes quand pour que alcool bi agir lu am solo la donc yeneen yi tamit si gàttal daal li li li intérêt si gel yeeg hydro solution yi mooy ñu am teneur en alcool bu normal. te yu ratax yi am na ko. yu ratax yi am nañ ko loolu moo solo quoi ratax bi tamit matière première bi moo moo changé excuse waaw ah, bi ñëw sa <laughs> euh, moo ci am solo. Euh, ba tey ci wàllu euh, mbirum garab yi dafay am important suñu waxtaan ci nu ñuy def ba am souveraineté pharmaceutique ndax genre ak événement yu mel nii xëy na ñu bëri duñ ko duñ ko waaj genre pandémie épidémie. Mhm. ñëpp di utiliser même garab. bu mhm. fekkente ne da nga koy jéggaane bu danga koy jëlee bitim réew ak yooyu yëpp. xëy na mën na indi rëkk-rëkk quelque part mm-hmm. Sénégal tey est-ce que ñu ngi réfléchir ci ban stratégie la ñu am euh, pour am souveraineté pharmaceutique ti euh, wekku ci dëkku tugal yi. Euh, am na solo question boobu mais dama bëgg a leeral auditeurs yi sénégalais yi ne leen France bu ñuy wax France nga xam ne c'est la puce une des puces cinquième puissance xawma troisième presque 37 pour cent garabam yi muy utiliser biir France daf koy jéggaani mm-hmm. Inde moo tax bu crise bi amee tamit ñu ne ñoom dañoo war fexe ba matière première yi doon defar nga xam ne Inde koy defar ñu delloo si ko France kon ñoom tamit problème ñuy jànkoonteel lañ am wala gën koo tar sax parce que li ñuy consommer si médicament c' est dix fois wala vingt fois supérieur lu Sénégal di consommer donc du du benn am nañ problème yooyu d' approvisionnement même su fekkee sax am nañ. encore ay industries yu nekk France di fabriquer pour France mais la plupart de médicaments français laa wax yi ma xam yi Grande-Bretagne lay jógee yi Tchécoslovaquie lay jógee yi Inde yenn un faible pourcentage boo xam ne dañu koy defaree foofu kon defar bi tamit defar ko sa dëkk c'est l'idéal mais il faut mu rentable français ils ont fait le choix de ne pas fabriquer di contrôler li indiens yi di fabriquer di ko dugal même su fekkee ils gardent le nom français c'est très important am na ñu bëri yu ne ñu ngi defar am nañu usine wante fekk lu ñuy wax bëlk maanaam euh, produit fabriqué brut bi noo nàmbale la ñuy jël mu ñëw seen dëkk defar emballage bi def ci benn tour ne ñoom ñoo ko defar mais c'est accepté par la réglementation quoi loolu Sénégal mun a def loolu mooy pour te dire que c'est une piste pour que ñu ñu ñu ñu ñu am cette euh, souveraineté thérapeutique dafa laaj réflexion pour man yu xaw a xóot parce que quand même am nañ fi expérience ay usines yu fi nekkoon dem ba tëj mën naa cité Pfizer dem na ba tëj bu récent bi mooy Médis. Mhm. arrêté gum na ñu yaakaar ne dina démarré waat am na ñeneen ñu fi ne mais am na la plupart de leur activité c' est des reconditionnement donc donc euh, c' important que ñu xam ban modèle la. Mhm. ensuite ñu xam naka la ci état di taxawee. pour mu am gëdd pour mu mën a ah, <clears throat> atteindre ses objectifs. Mm-hmm. waaw euh, ba tey rek ci wàllu euh, waxtaan wi dañuy woy ci li nga xamante ne euh, moom moo soxal ba tey wàllu chloroquine nga xam ne xam nañ ne te hydroxychloroquine la ñuy fajee ñi nga xam ne ñoo am feebar bi fii Sénégal buñ ko bëggee am ñu fan yi la ñu dégg waa Médis ne bëgg nañu ñu ubbiwaat entreprise bi parce que moom mooy seule entreprise buy defar garab boobu est-ce que c'est opportun bu ñu yaakaaree ne xëy na feebar bi léegi mu jàll buñ ko ubbiwaatee. bu nekkee chloroquine la ñuy defar est-ce que dina soxlawaat ñuy wéyal seen liggéey puisque autorisation de mise sur le marché yeeg yooyu yëpp protocole boobu yëpp professeur tey fan lañ ci toll. déjà pour pour ñëwaat si MEDIS. MEDIS quand même euh, euh, ministère de la santé mi ngi lijjanti affaire MEDIS bien avant ñuy wax waxi Covid. 19 mois de décembre janvier déjà délégué yi man rencontré naa leen kon ñu ngi du chloroquine bi moo taxoon ñu bëgg a dafa amoon rupture entre ñoom ak seen top man top management moo amoon ay jafe-jafe léegi mais bu ñu demee dégg bëgg nañu commencé waat ñoom ñaar ñëpp dañoo d'accord agul woon ci point pour de raisons de ñi salaire ñi management et cetera léegi nag le ministère de la santé jël na ko en main bu baax ministre bi dugg na si dugal si loxoom ba yóbbu ko foo xam ne vraiment euh, kilifa gi au plus haut niveau jot na si te joxe na ay directives yu pour. ñu xool ñuy démarré waat Covid bi nag prétexte la ak chloroquine bi prétexte la. Mm-hmm. mais su doon usine bi su ubbi woon di defar chloroquine rek du mën a rentable <laughs> bay viable donc mm-hmm. donc c' un prétexte. entre autres nga <coughs> bugga leeral tamit ñuy wax AMM yi. da koy dégg dem naa dégg naa sax ba benn kilifa wax ba ne AMM yi euh, waa su fekkee kii na il faut mu gaaw ma wax la MEDIS entre 2017 ak léegi nii MEDIS ci boppam. suñu direction jox na ko lu ëpp 40 AMM am na ay huit dossiers yoo xam ne dañ ko rejeté parce que baaxuloon am na douze peut-être wala yu nekk en instance parce que décembre novembre décembre 2019 lañ ko déposé kon bu ñu bu ñu lay ne AMM moo leen tardé déedéet nañ loolu nañ ko sànni fële personnel bi sax xam nañ ko waaye bu ñu ñëwee ba léegi ñu ngi leen di accompagner di joxe ay AMM ay garab yoo xam ne même xam nañ ne defaruñ ko Médis Sénégal Médis Tunisie lañ koy defaree mais pour permettre leen ñu ñu ñu amaat suux pour demaat dem nañ ba accorder leen ay augmentation de prix c'est très difficile fii Sénégal ñu augmenter prix yi mais des augmentations légères de prix pour permettre leen ñu kon état mu ngi siy jàpp. Euh, kañ problème bi nañ ko seet feneen nañ ko seet si management bi wala nañ ko xool si les charges. mais du du du du ay AMM. donc il faut loolu leer donc euh, d' autant plus que ñun suñu suñu stratégie mooy euh, usine buy defaree Sénégal garab procédure d' AMM du xaar du si su ñëwee rek expert dañ koy traité donc en 3 mois 4 mois maximum mën naa am AMM yi kon loolu c' est un faux débat. nañ ko teg <laughs> maintenant sur la chloroquine également la chloroquine est enregistrée au Sénégal. am na ñaar wala ñetti laboratoire yu defar hydroxychloroquine yoo xam ne depuis ay années am nañ seen AMM au Sénégal te si yooyu tey moom la ñu utiliser moom la ñu utiliser pour la prise en charge des cas Covid mais également moom la les malades yu am ay rhumatisme yooyu ay lupus moom la ñu utiliser maintenant kon le problème de la l'AMM de la chloroquine ne se pose pas pour ce cas-là. maintenant lan mooy problème réglementaire bi mooy dañ leen autorisé woon pour ay faj ay ay maladies rhumatismales rhumatoïdes les lupus érythémateux mooy des malades chroniques yoo xam ne dañuy soxla nga taxaw ñu autorisé leen Sénégal <coughs> Covid bi mu ñëwee nag nekk lu bees gars yi dem ci ginnaaw xam ne testé woon nañ chloroquine ak hydroxy si virus coronavirus yi amoon na activité antivirale te xamoon nañ tamit les propriétés antivirales de la chloroquine. qui a également des propriétés anti-inflammatoires waaw yooyu yëpp moo tax ñu teel a dem si moom ak bien sûr coow li amoon France rawul di mais teewu ñun nous sommes un pays organisé et autonome médicaments yi dañ ko réglementé doo ñëw rek jël sa garab utiliser ko nu la neexee moo tax ñiy faj balaa ñuy dugg si faj bi dañoo bind autorité bi direction de la pharmacie ne dañoo bëgg utilisé garab bi dañoo bëgg ngeen autorisé ñu utiliser ko pays yëpp noonu la ñuy def. ñun tamit on n'a pas dérogé à la règle donc yéex na gaa pour génne autorisation parce que lu bees la quand tu es dans une situation nouvelle il faut une attitude nouvelle mais aussi il faut pas le faire en dehors de la réglementation pharmaceutique parce que sinon les gens vont vont rire du Sénégal nee ñoom dañuy utiliser garab yi leen neexee amul autorisation déedéet ñun dañuy tey ci côté boobu pour mettre tout le monde à l'aise te état bi moo koy jël en charge ñiy faj ñu leen di fajee ci biir hôpitaux yi ak centre de traitement yi à partir de ce moment rek du fait du code des obligations de de l'administration s'il y un problème lié à l'utilisation de ces produits état mooy garanti mais nag médecin bi ne on ne déroge pas de sa responsabilité professionnelle il doit respecter les bonnes pratiques cliniques te it li li naata ngoom yi ñuy faj di wax tamit daf ko leen war a déglu warul moo tax c'est un cadre collégial qui prend les décisions de maanaam mooy jël décision wu paj ba pare nag am ay experts yu koy saytu su ñu waree bés bu ñu waree arrêté chloroquine bi parce que doxul nañ ne ah chloroquine bi kat euh, loram moo ëpp njëriñam ñu ko loolu nag processus la te loolu dëkk yëpp koy def fu mu ne. Mm-hmm. du Sénégal rek même même même même les tests même les même les tests tests yu ñuy wax tests rapides yeeg ay respirateurs yi. ci dispositif dispositifs médicaux yoo xam ne benn bu ñu ci utiliser tamit war nañu la càmbar xool ndax yow li tax ñu jënd la les spécification pratiques est-ce que yow yaa ngi koy remplir soo ko remplir duñ ko mën a loo tax yàqamtiwuñu ci test xam nga da nga dégg ay pays yu mel ni comme Cameroun rapidement ñu ne on fait dépistage systématique rapide alors que amul sur le monde il y a peu de tests yu ñu validé kon mën nga jël test boo xam ne cinquante pour cent la de mooy lor nga 50 pour cent ñoo xam ne peut-être amoon nañ ko gisoo ko donc ñun tamit attention yëpp dañ koy def ak direction des laboratoires au sein de la direction générale de la santé donc loo tax tamit malgré l'urgence ak tiit bi il faut ñu demee xel ak esprit scientifique parce que affaire yi moom du du du làmbatu tamit. Mm-hmm. waaw day am esprit scientifique garab bu ne dañ koy saytu saytu maanaam son efficacité mais dañuy saytu tamit son innocuité. dañuy xool ndax du lor te bés bu lor bi ëppee njëriñ bi rek dañ ko war a arrêté boobu moom mooy réglementation donc euh, loolu ñu ngi si yàgg euh, ça ça se au plus haut niveau donc les les autorités savent système organisé ñoo tax teel a dugal si cadre boobu <coughs> donc il y de problème à ce niveau là léegi nag bon normalement situation yi su fekkee nii la demee doo communiquer doo def communication bu bëri quoi parce que amagoo ay ay preuves scientifiques tangibles que nee nañ la 70 pour cent ñoo xam ne am nañ jàngoro mën nañu wér. Hmm? Mm-hmm. a pare ñu ne am na yeneen garab antiviraux yu ñu mun a utiliser suñu neexoon tey ñu ne dañuy tester même benn plante médicinale mën nañ comme waa Madagascar yi mën nañu suñu loolu tamit ñu ngi si jox nañu instruction tey ñu xool ak ak les plantes yu ñu am yan ñoo si candidat possible éventuel yu am yu am Mm. ay vertus thérapeutiques. des vertus thérapeutiques antivirales. waaw mm-hmm. parce que yu bëri am na. léegi nag loolu il faut ñu def dajale kuréel boo xam ne ñoom ñoo seen xel moo màcc affaire yooyu comme ay professeur Bassé nag équipe am il faut ñu def euh, analyse bibliographique xool lan la gaa yi bind yan téere yi li ñu bind pour ñu xool ndax dinañ ko mën a mettre en place. Mm-hmm. pour une utilisation plus large pour les Sénégalais. Mhm. kon daal li yeneen dëkk yi di def comme ay Madagascar ak yooyu di gëstu ci seeni ay gàncax ñun Sénégal euh, ñu ngi ci euh, donc professeur waxtu bi jeex na. dama ah. lay bàyyi rek encore une fois nga joxe des mots de sensibilisation à l'endroit euh, de la population ndax fi réew mi toll ci kaa communautaire yi ci ay toll sax ba ci rechute ak yooyu yëpp tey qu'est-ce ci ci lan la ñu war a focaliser wu population bi de façon générale en une minute. en une minute man sant yàlla alhamdulilah mais nag di digal ñëpp ñu ñaan yàlla parce que nee nañu ñaan mooy ngànnaay aji gëm yi kon su ñu gëmee yàlla suñu borom te Sénégal dëkku gëm la ñu nañ ko ñaan mu tegg lii <laughs> léegi nag béy si say wewu tànk walla wala daal na nga fagaru sooy ñaanit it na nga def loo xam ne dina tax ñaan boobu teel a antu mooy mesure barrière yi su fekkoon di lu ñu dogalu tëj dëkk yi kon peut-être affaire bi na gën a jéggi dayoo. Mhm. mais déjà saa confine virus bi ci benn ci ay région donc di ñaan sénégalais yi ñu bañ a fustiger ñu ñu am kii bi maanaam bañ leen. stigmatiser loolu lu am importance la parce que soo solee masque bu normal rek nit mun a feebar nga nga jege ko wax moom mhm. dara du la jot kon bu ñu daw nit ñi. li leen jàppale si moment yi difficile yi pare encouragé leen pour ñu faju mhm. euh, donc maa ngi sant ñëpp di leen gërëm mhm. euh, di di regretter nag du temps bi gàtt nii <laughs> mënoon amul problème mm. professeur ci li nga daanelee noonu lay tëjee di wax nit ñi ne stigmatisation dafa di loo xam ne ñu bëri ñu ngi koy dund mm. euh, te ba su ñu invité benn patient la boo xam ne coronavirus daf ko daloon mu dund stigmatisation boobu mu mm-hmm. wàññi lu bëri ci moom mm-hmm. dina ñëw jokkook auditeurs yi wax leen nu mu dundee feebar bi tout son mm-hmm. parcours avec le coronavirus ak regard des autres yi ni ñu ko doon xoolee la mu wàññi ci moom ak mm-hmm. tey nu mu def ba gañe feebar bi ba ñemee dem taxaw ak média di wax mm-hmm. di raconter son histoire mm-hmm. jaa ngeen jëf